وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دوم دباي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw ba nu santee buur bi tabaraka wa taala ñuy julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di sant borom bis bi ñu dëgmal muy xaadimu rasul di ñaan yàlla fayal na ko di ñaan li mu jëmbat ci ñun te mu sax mu jebbi bu baax te ñëpp muurloo ko di ñaan sëñ Muntaxa Mbakke xalifatul am di tarixatul muridiya Euh, suñu borom eggale ay naalam ba ñu jàppale ko ànd koog moom ba mu eggale waale naal yi ñu ko jiitu woon euh, di sant bu baax euh, sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed ci jëf ji mu baaxoo jëf ci bisu maamam bu tedd bi di ñaan njabootu sëriñ Touba gépp suñu boroom taas leen ci barke xadimu rasul mi borom bis bi. muy bis bu mag nga xam ne da ci daan wax allahuma ijal xayra ayaami yowma alqaaka defal bis yi nga xam ne mooy bis bi gën ci samay bis mooy bis bi may eh, lay fekk si mooy bis bi mu wuysee Touba te sëñ Ibra jëmbu nettali ci lu bare bare ci xisa ci ni mu demee waaw kon alhamdulilah ñu ngi leen di sant ci wàllu googu bu baax di sant sëñ Bay Baas ci kàddu yu rafet yi mu wax Euh, ci turu euh, Serigne Mbacke Guèye bu baax a baax a baax euh, ñuy nuyu itam Serigne Ndiaye Guèye ñu ànd ak moom ak ñi ànd ak ñoom ñëpp Serigne Khadim Guèye ni mu ko waxee démb la woon ndax su fekkee damaa am lu bari ci samay njaboot ma dénk ko ko ñi ma bokka ak Serigne Aliou mu taxawu leen nam leen war a taxawee def naa ne fàttali na ci tuuti jan na ngeen xam ko yéen itam sama digg moom bu baax a baax a baax. tey ci suba rek xaw ma démb laay nettali na leen ba ma ko xamee ba léegi de mu sa a ko waaw bu dee lu baax ak lu baax ca lu baax rek na meloon rek la mel lu baax moom du mën a dolli ko ndax baax rek lay def waaw du wàññiku benn yoon itam moom noonu la ko yàlla melal ñoo ngi ko ciy sant bu baax baax baax di ñaan way juram wa suñu borom xare ko àjjana ndax euh, liggéeyal na sëñ Mbàkke Mouhamed bu baax liggéeyal na Gaynde Fatma liggéeyal na Cheikh Moustapha liggéeyal na Cheikh Moustapha mii itam ba mu sant ko ci moom la wàcce euh, kon yéen ñi fi teew ñëpp jóge ci ay cheikh ak fu ngeen mën a jóge euh, maanaam ci njaboot gi ngeen ràññiku ci loolu seen waajur yi ràññiku ci woon ci ànd gu ñu àndoon nag euh, way ñii ma leen wax ci àndin wu rafet te dara manqué wu ci ba ngeen bañ jëmbat loolu ci yéen ngeen di ko feddali ci feddali ci tànk yu rafet yi ñoo ngi leen di sant di leen nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm Euh, sëñ euh, Ibra Jëmb sama doomu ndey la moom it euh, no bokk ndey noonu la bokkee ak sëñ Moustapha mi leen yebal tey noonu la bokkee ak moom ndax ñun ci wenn xeetu suñu wàllu jigéen noonu lañ demee ak sëñ Mbacke Mohamed loolu defe naa ñu bari xam nañ loolu waaye lii day lu ràññiku loo xam ne sëñ Moustapha ci biir njabootu sëriñ Touba gi daf noo sagal def noo sagal sag bi moo di euh, xoolul kër gi rek yàlla xam na ne fépp lay defal waaw ci loo xam ne xëy na ñu bari yëguñu ko waaye man itam ginnaaw damaa bari xame fu ne dañ may jottali seeni cant ci moom te loola da doon day may fekk ma yéene ko duma ko man ma fekk mu defal ma ko ci wàll googu te bu ma ko doon lim du ma fi jóge kon nag kooku ku mel noonu boo ko amee sëñ bi danga koy fonk bo amé ku bax ko xamné ne makaarimul axlaaq yëpp mi ngi ci mom mu bolé ko nopi ci walu gogo mu wolé nopi bu doon keneen man nako na wo wala mu jébaane ko wala dara bu ko défé nopi da ngay xamné ki yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba moo tax muy def kooku bu ko défé wax deug yàlla ñun dañ dama ci am tité daf may dama ci tiitaru ci jëfëm joju kon ñong koy sante diko ñaanal ci turu serigne Ahmadou Makhtar. moom ñuy ñaan yalla yagal ko fi bu baax baax baax ci kanam darul khudus ñu ñaanal ko ñepp yalla may ko wër mu gën fe yag kep ku fi ma sa yag ku fi ma sa jaar kon euh, seigne Moustapha ngeen jottali na ko suñu cant euh lima leen di ñaan itam moy sama yene ci mom dama leen koy denk ci yene mu melni jëm ju and ak di dox di wax di jëf ngeen jàppal ma loola mu ànd ak yéen waxtu wu ne ci lépp lu ma yéene lu ngeen lu ngeen ko yéene ci lu baax rek mu ànd ci ak yéen di ko jëf di ko wax di ko def waaw loolu it maa ngi leen koy ñaan waaw mu nekk jëmm ci yéen waaw ndax boo bu ma dellu woon sëñ Aliou dama mas a yabal ci sëñ Saliou loolu ma ak sëriñ Cheikh Say euh, fekk da ko ne da ngay jëkk a dem ne ko man de dama am sama sama doom sama doom ju sama taaw euh, te su ma sañoon am fukki at ak juróom-ñett ba di ko liggéeyal waaye loolu dama magantewul ak moom lu bari kon nag danaa ko booleeg Cheikh Aliou muy sama sama doom du ko wor du ko wax lu dul noonu te dana ko liggéeyal euh, ma loolu laa leen di wax euh, sama doom Mouhamed ma moom la féeteel kon alhamdulilah dana gën a jaxasoog yéen bu soobee yàlla ci wàllu googu waaye dama ciy boole sama doom yéene yoo xam ne ni ma ko waxee ngeen def ko jëmm yoo xam ne Mouhamed mi dina ñëw gunge ko mu ànd ak yéen ci li ngeen di jëf ci li ngeen di xalaat ci seen i yéene ak seen jëf ba loolu àgg ci moom maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla guddalu fanam ndax euh, sunu fierté la ci Cheikh Moustapha ci njabootu Cheikh Moustapha sunu fierté la ci njabootu Sëñ Touba suñu fierté la itam ci doxinu réew mi ndax réew mi noo ko bokk kenn déggu ko ci ñàkk fayda ci yiy xew jamono te kenn ko ne gis ne jamono ni mel waaw ñaari yu ci bari alal ak tur mo fi sank ñu bari alal waaw te loolu yëpp suñu borom musal na ko ci kon li nga doon wax léegi ne borom xam-xam ak borom euh, borom alal borom kàttan ñii ñoo war a dajaloo pour jëmmal lépp loo xam ne yéene yu baax la ñu mën koo concrétiser kon nag mel na ne nii ngeen àndeek moom loolu moom résumé na boole na ñett yooyu yëpp. joxaat ko xaadimu rasul joxaat ko maamam xaadimu rasul mu tasaare ko ci yoonam bi ba mu euh, fees dell euh, njabootu Cheikh Moustapha gi kon alhamdulilah yàlla yàlla guddalu fanam ci darajay xaadimu Moustapha euh, ñu ngi leen di sant bu baax ngeen dellu ñu santal ñu Serigne Mbacke Guèye ci cër bii nga xam ne jox nañ ko ko ci ni ko waxee ñu yéene ko ko bu baax ñun xam nañ lépp alhamdulilah kóolute googu yàlla na yàgg ci moom yàlla na ko jig bu baax a baax a baax yàlla guddalu fanam moom itam ba lépp luy seeni naal yëpp ngeen ànd ko ak moom mu eggale ko sëñ bay kon yooyu itam ñoo ngi lay sant bu baax ci wax ji sëñ Ibrahima ñu ngi lay sant suñ Xaadim sëñ Mbàkke ñu ngi leen di sant bu baax ak yéen ñi ànd ak moom yëpp euh, ñëw gii ngeen ñëw tuyaaba ji yàlla nañu ko yàlla boole bu nu ko boolee ñu xëpp ko euh, mu ànd kook yoolu màggal gi ñu tasaare ko ci réew mi ndax amul lu réew mi ba mu daj fépp na ko sëñ Touba ñaane woon yéene ko jaam yëpp yéene ko bindeef yëpp comme sëñ Moustapha euh, waxtu wu ne euh, nekk kenn ku ne di ñaanal rek ndax moom itam bu fi yàggee luy suñu mébét luñ ci man dana ko def luñ ci mënul danañ ko mënal kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm jërëjëf. yamu delalala kula fawi faw aram xaw du gam gam lek sagan yamuleni leen yamuleni baay yamu leen i baay leerug cosaan nga xewoon fa mbàkke foyo ko yow labbayka ke cham la wuy cham cam su la wuy siwul nawarta sarxan Mustafa samsul waraaya faw xaweer ab xutboo ngi gaay wuy si wul dañ laa xamul géej gaa ngi am xayaana ngi ñu ko gisee nii waa kër fi ci Serigne Cheikh di ko si ay teraanga yoo xam ne nii ngi war jëm ci màggalug Cheikhul Khadim gi nga xam ne nii euh, moom mooy euh, màggalug Daaru Xudos màggalu gis ngeen ñu di jëm ginaar yi gis ngeen ko ak xar yi sëñ bi am ci mbégte lool génn ànd ak ñoom visité euh, li nga xam ne nii moom andi ci teraanga wax am ci lool ñuy ñaanit bu at mu jot rek allah borom di ko ful di ko gën a yi ànd ak yëpp am am contenté bu baaxa baax ak mbégte ci addi yi nga xamni ne nañ ko Serigne Cheikh Aliou Mbacké yaay mbambulan baxru na daa sanguleen te duy yaay ndox mu tay kula la tabbi tooy ku mandi tay ya murtajaab nu murtajaab nu yow mal khiyamati ñi ñu yaakaar nañ ni say ku am diré ko am kula ñakurus rus ba moom Cheikh Mouhamadou Moustapha mu santaane woon sax ne bu gan ñi dikkee na ngeen di génn seeni néeg bàyyee leen ko ba ba ñuy dem loolee lépp mu daa ko doxal ànd ko mag ñi fi nekkoon ba mu fi jógeet ñam fi bàyyi woon di ko wéyal ànd ñam fi ba ca seen bu baax wa di si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma radiyallahu anhu moom itam taxaw ci taxawaay bu am solo bu ràññeeku liggéey ci liggéey bu rëy jànkoonte ci ak coono yu bare bare bari ba yàlla dogal lépp tege ci yoon yomb ba ñi fi jaar gannaawam ñëpp it fekk nañ mu yomb ndax la ca doon jafe-jafe dëgg-dëgg moom moom la taseel moom sëñ si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma waaye loolee lépp nag def na ca fulla ak fayda ak mat ak dëggu te teg ko ci xam-xam bu wér ak njàngalem Seyxuna Ahmad al Xadim radiyallahu anhu ba bis bi taxaw booba ak léegi dañeesul di ko dundal di ko taxawu ah, ba mu agsi ci loxol sëñ Ahmadou Mokhtar mii fi ne di Cheikh Modou mu ànd koo kilifaam sëñ Mountakha bashir mi nga xam ne moo la sun boom teg ci kanam njabootu murid gépp ak taalibe yëpp ah, sëñ Moustapha Mouhamad mi am yéene lol ci lii nga xam ne daa nekkoon ci loxoy woy juróom ah, di sëñ Mbacke Muhammad Euh, moom itam mu fas yéene lii ma wax lépp rek lu mu fi fekkoon rek mag ñi daa ko taxawu ak di ko taxawal moom itam mu taxaw ca bu baax a baax ca na mu gën a mate euh, ànd koog mboolem nag ku ko nangoo ànd ak moom rek kon loola mooy sababus bu bis bii ak see wala buy jub euh, yii di seex si mu digal kim jiite mu soññu leen ñu waajalaat bis bi nañ ko daa waajale ci lépp loo xam ne rek dana yéwénal bis bi ci wàllu jëm ci ay bernde moo xam ko mën a indiw nag wala gàtt walla ganaar wala cere wala lu mu doon rek ba ci sax koo xam ne danga wàcce ay kaamil fa nga nekk wala nga jàng fay xasiida indaale lim bi ah, kon nag tey jii sëñ Mbacke Gueye Ngathie moo nekk ci kanam kilifa yooyu yëpp kon ci turam lañ fi ñëwee ci ndigal lu jóge ci sëñ Moustapha jaar ci sëñ Fallu rakkam mu wax ni kon lii dañ ko daa def nañ ko def nañ ko daa defee wala buñ ko mënee yokk ñu yokk ko ba tax na kon ñu ñëwoon jaar ci sa mag Serigne Cheikh Aliou euh, andi woon ñaar fukki gàtt ak benn ak téeméeri ganaar ak fukk ci turu sëñ Moustapha mu jaar ci kilifa yi mu wax jaar ci sëñ Fallu ak sëñ Mbàkke Gey Ngàtti Euh, jëw mooy jëwriñ it kër ga yëg mooy jëwriñu kër ga ànd kook magam di sëñ ma beey ak euh, jëwriñ ji nga xam ni euh, ñoom la àndal ak rakk yeeg bokki taalibe yëpp ak sëñ xaadim gaym yi nga xam ne way juram moom itam liggéey bi da cee wax dëgg yàlla dox jéego yu am solo ba yóbbu ko foof wax dëgg ku xam rek xam nga ni fa mu ko yóbbu fa sori la xanaa li ñuy góor góorloo mooy fa mu ko bàyyi ñu bañ caa manqué dara waaye booy xool sax da naan ndax mënees na cee dolli dara sëñ Cheikh Darou dikk na moom itam sëñ Bakka Fassine la way junam moo ko mujj yor ba yàlla dogal bi mbàcceb liggéey léegi sax euh, ci weer lay toll at mi dé euh, kon ñooñu ko ñëpp rek fu liggéey bi jëm rek dañuy ànd moom ndax lépp benn rek njiit daa munte ñàkk waaye kon noonu rek la demee ñu ci des yi jëwriñ xëy na bu fekkee Eh, ki nga xam ne moo yor kàddu Alaaji Mbay Baas mi yor kàddu gi kàddu sëñ Alaaji Mbàkke Gey Ngàcc ci ndigalul jëwriñ yi xëy na loolu dina ci gën a mën leeral waaye ci gàttal daal loolu lan indi woon ci sëñ Seex Aliyu mu wax ne nañ ñëw ba ci yow ñu jébbal la ko xamal la ne noonu la demee sëñ bi yëg yow itam ñu ngi lay sant di la gërëm yow itam sab taxawaay yaakaar naa ni eh, eh, ku nekk fii rek te jege xam nga sab taxawaay te wax dëgg yàlla boole woo ci wax boole ci sàkku ñu xam la waaye wax dëgg yàlla sab taxawaay ak dëggu gi nga euh, dëggu ci taxawaay bi ak sell gi nga ciy sellal loolu boo yëgeeg boo yëgul ñu baree bare jot nañ ci te loolu yombul kon nag yow itam ñu ngi lay ñaanal sëñ Ahmadou Mokhtar it doy loola nag ba ji jiital la ci diiwaanul muridin bi nga xam ne moo ŋànk mboolem ëtti Seex Moodu Mustafaa yi daayira buñ fiy tuddu rek mi ngi ci gannaaw diiwaanul muridina ndax mooy bi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Modou Moustapha ku fi toog toogaayu Cheikh Modou Moustapha ah, di joxe ndigal di tere te ki fi nekkal Cheikh Modou Moustapha ku ñuy tudd di tudd Cheikh Modou Moustapha rek mooy sa jëwriñ mooy sa njiit kon loolu it tey sëñ Ahmadou Mokhtar la fi yàlla teg ak jëwriñam sëñ Cheikh Mbacke Madina sama ak ju baax di sëñ Abdourahmane sëñ Cheikh Aliou mi ñu fi jóge ak seeni rak yàlla na ngeen fi yàgg te wér te àggale liggéey bi foo xam ne kenn mësu ko faa àggale ah, loolu sun borom mën na ko sëriñ bi toll na ne yàlla na ko yàlla def yow itam yàlla na la yàlla taxawu ba yaakaar yi ñu am ci yow yàlla nañ gis lu kawee lañ doon yaakaar tey ak ëllëg teen ànd ko ak yow yow itam ñu ngi lay sant di lay gërëm di la ñaanal. Cheikh Ousmane dikk fi ci ndigalal serigne sëriñ gey khalifa xalifaab sëriñ Mabeye Guèye ni mustapha tek fe kanam cheikh yi mu fassiyene la laxasaayoo leggeyal la di la neuy ci tour serigne cheikh ali mii nu bàyyi ko fa mom mu jox nu ndigal ci yow di la neuy ci tour sa dom cheikh mustapha al Karim di ñaanal seex Ahmadul makhtar mu yag fi lor di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatul am mu yàgg fi lool sa kilifa gu baax ga di cheikh Ahmadou Mbakke lii rekk la bëggoon lii la waxoon fala saalal ilaahu lahu rafian lii day dox waaye du arrière ndax luy arrière sëriñ cheikh du ko tudd ci làmmiñam te yàgg naa gis lii بكيت ليلا بكاء بين أجناسي وما أساخو لسفراتي وأنفاسي بمو يوو كان يوو غور بمو خمي لنرى خيو كان يوكو بمو يوخ أن بولومي كن ويوت ليس البكاء على مال تضيئني ولا على الياسي من لقياي رباسي بل البكاء على الأخلاق لي رك لسري شيخ مباكي واخون في لا خولون في لا تگن بتم loole mu ngi dox yàlla na lépp ak cité fekk leen fi te fekk nu fi sëriñ Mbacke Gueye nee mu ngi feddali ak taalibeem mu ngi feddali pas-pasam mu ngi roy ci góor ñi jiite woon liggéey bi bi muy laata taxaw di xool ci ñoom yëg ne seenu doxin ak seeni taxawaay des koy roy looloo sabab bi ñu fabee liggéey bi teg ko ci boppam mu tànn jawriñ yi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi xam ni ñu war a liggéeyee xam fi ñu daan jaar te mu rafet mu fab leen teg fi kanamam te ñoom ñii it ñooy ñoo xam ne bi leen alxaaji sëriñ Mbàkke Gaye joxe ndigal li dafa am baatin ndax dafa fekk muy ñuul ñoñ soxoruñu te yéene nañu ko li ñu ko jox te xam na ne duñu ko ko yàqal ñuy dox doxin wu rafet wow noo ngi roy ci ñoom li ma wax fa kanam Seex Aliyu rekk lay waxaat mooy dafa am ñu doon waxtaan fi kanam seex Ibra Faati borom Daaru Muti ba yàgg am ca mag mu wax ne magkat loo dolli ci dara darajaam xam na ko Cheikh Ibra Faati ne mag mu dufuta ci raw de kon mag mu dufut ku mu fab teg la fi kanamam fab bëtam di la xool tofal la njaboot gu ñu yar jàngal leen ñu dox as lëf jàng jàngas lëf nga teg leen fi sa kanam ne leen xool leen ci ñii daa xool ba xam ne du ñu yàq te làmbawuñu kañaan sëriñ bi noo ngi sant ñii ci turu alxaaji sëriñ Mbacke Gueye ci cant gu mu leen sët alxaaji sëriñ Mbacke Gueye ngi am ci yow yaakaar di ko am ci Cheikh Aliou meenu bàyyi koo fa moom nee na moom gëm na ne lu mu doon xool ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma gis na ko ci yéen lu mu doon xool ci Cheikh Ahmadou Mbacke Mohamed gis na ko ci yéen lu mu doon yaakaar ci seen maam ju baax ja mu ngi koy yaakaar ci yéen te xam ne mu ngi ci yéen ndax ba leen seen maam di faggul booba nun la doon faggul surriyatan ba nga xam ne tej ta idu naaja nabiyal Mustafa tej ta ba ko seen maam di ñaan xaadimu rasul yéen la ko doon ñaanal waaye nun nag la ko doon faggul ndax yëykatab gerte bu gerte rafetee te xuurut jikka koy yëy nun nag amuñu lul gerte gi yéen ay gerte gi yal na ngeen fi yàgg yal na leen yàlla dolli kattan sëriñ Seex nee na jëf jaa ngoongu baxoo ci doomu di sa doom baxoo ci dongo yi baxoo ci jëwriñam di alaaji sëriñ Mbàkke Gueye nee na jëmmam ja moom Cheikh Moustapha ak jëmmi sëriñ Mbàkke Gueye ja ak jëmmi jëwriñ yi ak jëmmi dongo yi lépp jébbalaat na leen ko yéen ñi nga xam ne yéen a di kilifa yi Cheikh Moustapha ni leen ko Cheikh Moustapha jébbale te wóolu leen ci lool bisub tey nag bisub faj aajo la ndax bi sama am di sakku ci boromam defal ma sama ngeen ji bis muy bis ba may dëpp ak yow bis bi di ngeen ji gis ñu jëm ci serigne mustapha Mbacke mu bax mi sant nu nu def sunu ñak def ko ci bis bi ngir bëgg a faj sunu aajo amna lu mu doon fàggoo kon ñew na nu no ngi ni ku mar nak ak si ak dex ñime woo tab dugg ndigal rek ngay deglu nu ndeku tang jox nu nu naan ku nu dugal ci dex gi nu dugg ku tànk yenn nu yóbbu amuñu lu yéen buñ fi jógee duñu ko wuti feneen asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di ñu leen di siyaare yéen ñëpp <coughs> kenn ku ne ci turam ak santam euh, di bëgg bu baax ci jataay bi di leen masu coon wax na kàddu yi xam ne moo war a jóge ci kilifa bu mag gi di sëriñ Ahmadou Maxtaar mooy kàddu yi sëñ Cheikh Aliou nga xam mooy sunu kilifa bu dee kàddu yi nag war a ci mbokki taalib yi jëm si ci yéen loolu mën naa cee góorgóorlu mu muy cant ak ngërëm tàmbale ko ci yéen ñii di jëwri ñi xam ne yéen lañ gis ak sëriñ Mbacke Gueye mi nga xam ne mooy seen jëwri ñi ñeen ñëpp ba ci sëriñ Moustapha mi leen yilif yabaleen fi ma ngi leen xamal ñu ngi leen di sant ci jëf ji ñu leen gërëm ci di ko rafetu di ñaan it yaakaar ji ngeen am ci sëriñ Touba ci bunt bi di Cheikh Moustapha ah ñi jiiti woon di jàpp nañ ne lu ne am nañ ko ci waaye yaakaar jooju ak yitte jooju ñu amoon ba am loola ngeen topp ci seen tànk ngir am ko waaye yàlla ma ko doon joxe jeexul ci yàlla ngeen ci am lu leen tolloo wala ko foox ndax yàlla mën yàlla ngeen ko yàgg jiite ci ànd kook seen i kilifa bu ci kenn mànk yàlla na yàgg lool yàlla dolli barke bi ak sut sut sutura si ngeen xam ne daal bég nañ ci jëf ci yàgg na ko jëfit nag ndax sunu kilifa sëriñ Mbàkke ko daan jëf ci sunu kanam loola it yàlla def na at moom ku njëkkee jëf mu doon dayru sët yi ba dem ci moom man mii ca laawoon lam na ci waxoon a tey laa yemal jëf na ko it ba jóge fi moom ba fi ñëwee léegi mi ngi def yalla ko yàgg def jigéen yàgg ko àndal loolu lañ ci amon ci li ñuy wax ñuy sat ñëpp ci gërëm ñëpp ngir bëgg am sa yërmande taggo ki nday to ko ci wo mo dal di ñew amana sax mo sax fi yow to loo ko wax mo dal di daw ngir bëgg am sa yërmande di jema sam sàmm say ndigal te jéem def lu lay bégal di dàkk sam xel di fetal ngir bëggaam sa yërmande di rafle tey sooñu di xiif di fande tey tëdd fi suuf tey diñe tey wappa ko loof ngir bëggaam sa yërmande comme ni ngeen ko gisee rek ginnaaw bu ñu jógee kër Serigne Cheikh Aliou njabootu Cheikh Moustapha Mohamed yebaloon leen Serigne Cheikh Aliou Mbacké ginnaaw ba ñu fa ñëwee jébbal addiya ji mu yebal leen Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne nii moom moo di jiital euh, diwaanu Mouridina di kuréel gi nga xam ne ni moo la euh, bunti kër Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ibn Cheikhul Khadim ni ngeen gisee addiya yi nga xam ne nii andi nañ ko euh, ci Serigne Cheikh Aliou mu yebal leen Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma toll ci ñaar fukki xar ak benn téeméeri ginaar ak fukk waa kër Serigne Moustapha Mohamed andi woon addiya jooju tey mu jëm ci màggal gi nga xam ne moo la ñu dëgmal di màggalu Cheikhul Khadim Euh, di màggal gi nga xam ne moom la ñu wooyee màggalu Daaru Xudoos kon euh, fii ñu nekkoon nii mooy kër Sëriñ Ousmane Mbacké euh, Gaynde Fatma ñoo ngi leen di jaajëfal ci yeneen i programme incha allah sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek far jekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha